gaañi jéem leen jéem leen ku jéem yàlla buur bi moom dina la jàppale gaañi jéem leen jéem leen ku jéem yàlla buur bi moom dina la jàppale aduna xëyu rekk jikki di soti Bene bene ñaar ñaar moo lay yóbbu ñett gaañi naa anyị na ngende ñu ngi leen di nuyu amaat mbégte ci seen émission jotaay ak boroom tawféex ñu nekk ba tey ci pàcc ba ñu nekkoon muy ci feebar yi xam ne mooy dal suufu doomu aadama gi moo xam anus bi la moo xam rectum bi la moo xam enstigmoïde bi la wala colon bi

wala cancer de l'anse sigmoïde maanaam cancer yi nga xam ni dafay dal nit ki ci bouti bobu di colon bi muy solom bi maggi ak ci souf gi cancer nak ku ne dégg cancer d'abord moy lan xam nga ni colon bobu ñu wax sax te xam na moom wax ci cancer yu ko dal ku ne xam nañ ni colon bi ay cellules ñoo dajalo ba nek colon bi comme demi do aadama bi yëpp cellules yoy nak bu fekkee ñom dañoo jekki-jekki mel lu dof manam def des wax multiplication cellulaire bo dafa anarchique ñu ëpp fa lañ wala sax leneen cellule rax lolu ci cancer olof diko wax ngal ngal bobu vous nga des ne dal nit cancer anal yu mel nonu na fièvre bo mi ngi di Nek fer bo xam tam nit ñi war nañ ci bayyi xel ndax na nga xam ni lay mandarga wo manam yi nga xam ni mom ngay gis ci sa bop muy mandarga yi dafa am yenen fetu febar yo xam day ak ñom ta fekk cancer la motax mu nek lu doy war ndax nit ki mën nako am fogg dafa am hémorroïde mën nako am fekk dafa am dafa am fissure anal fekk cancer la am xamuko mu yexu a ta cancer nit ki lu mu gëna a mu gën ci mom gën a am chance su kon nuróo bi mu nuroo yeneen feebar yi moo tax ñu war cee jóg ñu war cee bàyyi xel ñu war cee gën a góor góorlu ndax boo xoolee cancer mandarga yi nga xam dina ko indi benn bokk na ci nàcc nàcc bi nit ki dana gis ne buy dem cabinet dafay nàcc am na ñoo xam ne dañuy dem cabinet lépp deret rek la ñuy génne dañuy dem douche cor lépp di deret ñu jóg xonq cuy wala mu xonq cur ñaar yëpp mën na nekk mën naa xonq cur comme mën naa xonq cooy wala nga gis ni nit ki day dem douche ànd ak biir bu daw ànd ak deret mu rax mu mel ni biiru tañ loolu lay nurool ànd ak deret loolu it ki am cancer ci suuf gi moo xam anal wala rectum mën nay gisee noonu wala gis koo xam ni dafay gis ni moom day toog ay fan yoo xam du dem cabinet dafay seere waaye bu seere bi dañee biir bu daw lay dañee maanaam moom day alterner diarrhée ak constipation loolu it mandargay la koo xam ni signe cancer la maanaam mën na ko nekk ngis koo xam ni dafay jeex di manqué appétit biir bi di metti def xurr muy génn ay ngelaw lu bari di dem nag duus lu bari nga gis ni day dem duus léegi toogaat cinq safaat dem te saa yu demee lu muy génne dafay ratax ànd ak deret mais bu paree day yëg ni am na lu des suuf bi rectum bi day mel daa am benn genre pression benn genre tension bu mu ci yëg day am benn gêne lu mel ni bul lay sentir ni am na lu laal lu bi yëg-yëg boobu muy am benn bokk na ci yi nga xam mën naa nekk cancer du wala cancer anal teg ci mettit am na seen bopp dana metti mais am na ñoo xam ne danañ dem cabinet lépp di deret wala deret bari génn mais du yëg benn mettit dem nañ douche li génn ci deret bari na waaye du njëg mettit loolu siiñu signe la mën na ko nekk wala am na ñoo xam ni dangay gis ni bu ñu demee àll ba noppi seen suuf day mel ni rocceeku di saf ànd ak tàngoor teg ci nag mu mel dafay wex ci suuf gi loolu bokk na signe yi nga xam ni mën nañu signe cancer la boo ko dee xool day xaw a kon si ñu yeneen feebar yu bari yu melni ni hémorroïde yu melni ni fissure dana màndargoo nonu ba ci yenen febar sax yo xamni mën nako ko mom lu melni ni wax rectocolite ulcéro-hémorragique nga xamni mom febar la bo xamni ni màndarga yooyu nga xamni mom la cancer di def nit ki ni koy yëgee non la koy yëgee moy bir bu daw bi and ak deret bi suuf gi di xasan ulcère di naaj def lu melni ni xoos wala lu melni gom bu demee dus muy saf di metti teg ci muy dem duus lu bari te biir bi di ànd ak daw bu bari ak mettit muy jeex du mën a lekk loolu xam nga ku am li ñuy wax rectocolite ulcéro-hémorragique dina ko dal te ku am cancer dina ko dal nga gis ni kon nuróo nañ te bokkuñu waaye tam rectocolite ulcéreuse boobu tamit bu yàggee ci nit ki mën na ko indil cancer rectocolite ulcéro-hémorragique du cancer mais bu yàggee ci nit ki mën na ko indil cancer fii dama doon wax rek ne leen si ñi nga xam da ko nuróoleeg moom.

ba ci fissure biñ fi waxtaanee la woon muy fissure anal boo xam ne yàgg na ci nit ki faj bi baaxut mu yéex a wér bu yàggee mën na ko indil ndax cellules yi nga xam ni moo ne ci rectum bi à force ñu jéem a cicatrice cicatrice ñu bu yàgg mën na multiplication cellulaire anachique boo xam ne dana tax nit ki mu am li nga xam ne moom la ñuy wax cancer anal boobu kon ñi am fissure itam nañ ko faj mu baax fissure anal bi ñu fi waxtaanee woon ci jamono jee passé moom it bu yàggee ci nit ki mën na dem ba nekk loo xam ni c'est que mën na ba indi cancer lima bëgg fofu moy amna ci yenn feebar yo xamni ni muy ko colique ulcéro-hémorragique muy malade de Crohn muy fistule anale yu mel non yooyu nekk na feebar yo xamni ay feebar à part la mais nak mën na indi ëllëg ci nit ki mu jural ko mu dem ba egg ci cancer muy dafa nekk ay facteur yo xamni facteur prédisposant la manam yu ko mëna indi la kon yoy tam nit ku bu ko amé na ci gor gorlu mu faj ko ndax feebar yi nga xamni moy cancer anal du wala rectum melokaan bi muy indee muy signe clinique yi dafa xaw a nuroog tuuti ak yeneen ci feebar moo tax mu xaw a doy waar tuuti wante tamit ñu fàttaliku ne moom cancer anal boobu mi gën a law ci nit ñi te muy gën a bari léegi ci li nga xam ne mooy góor ñi loolu nag kenn mënul xam lu waral loolu donte nag góor ñi la ëppee moom cancer anal boobu tamit. am na yeneen feebar yoo xam mën na ko indi mooy lu mel ni yenn infection yoo xam ni nit ki da ko jëlee ci wàllu sëyam muy infection sexuellement transmissible yi ci IST e yi lu mel ni feebar yoo xam ni ci sëy la ko nit ki di wàllante muy benn virus bu ñuy wax virus kooku nit ki bu ko wàllee mën na ko jural mu am cancer anal moo nit ki ci wàllu sëy nañuy jël seen matukaay bu baax moytu yenn infection yi ndax mën na nekk cause cancer anal bu ko doon tënk ci wàllu pensée anale ak ni nga xam ni noonu lay dikkee nit ñi yooyu mooy li ci ëpp mooy facteur prédisposition waaye nag nit ki mën na am cancer anal fekk ni amul lenn loo xam ne ci yooyu sabab na ko nit ki mën a jekki rek am ko ci lu mu xamul maanaam mu nekk loo xam ni du lu ñu sóor du nekk loo xam ne du ñu xam lan moo tax mu am ko dafay faral di am waaye nag am na ay facteur yoo xam nag bu yàggee da xam ne lii foofu la jëm kon nit ki war na fexe ba gannaaw lenn li moom da koy dal muy ndogal ci moom du ko xam mais yi tax mu di ko dal di ko yombal na ko moytu muy fièvre muy fissure anale fissure anale réticule ulcère hémorragique maladie de Crohn yëpp ku ci am na ko faj mu gën a gaawee balaa mu koy indil cancer boobu. teg ci tamit na xool ci wàllu dundinam mu am hygiène de vie bu baax maanaam fexe ba ay lekkam mu di ko saytu bu baax te moytu yenn lekk yi nga xam ne mën na favoriser cancer anal yooyu prédisposition la. maanaam nit koo xam dafay faral di lekk graisse gu bari wala beurre bu bari wala nen bu bari yooyu baaxul mën na indi nit ki mu yombalal ko mu am cancer anal boobu maanaam nekkul loo xam ne obligatoirement de facto da koy indi mais possibilité la mu am na ci ñenn ñoo xam ne seen gène mën na loolu mën na ko tax ba mu indi leen problème mu cancer boobu kon loolu lañ doon indi tey ci wàllu li xam ne mooy cancer anal cancer du rectum cancer de la lance muy feebar boo xam ni bëri na ci nit ñi te sonlen la waaye nag li may wax tulle ak màlle gis na deret ngi ci gis mu ciy génn moo xam dafa xonk cuur moo xam dafa xonk cooy mettit bi ci yëkk ci ci ki ki am cancer bi ak ki am hémorroïde bi daanaka mettit bi benn la wala seen xaw na ñoo nuroo xel metti nañ moo ki am fistule anal moo ki am fistule anal nuroo boobu ni nuroo moo tax nit ki war a tax mu teel a jóg ndax dafa mel ni tulleeg màlle te bokkuñu tulleeg màlle soo ko dégg olof di ko wax mooy dafa lay wax ni dañoo xelmati waaye bokkuñu ndax tulle gënaa gunóor la màlle gunóor la dafa am gunóor gu tudde màlle am gunóor gu tudde tulle tulle gunóor la goo xam ni moom dafa weex tàll am tipp tipp yu ñuul màlle gunóor la boo xam dafa ñuul kukk am tipp tipp yu weex

kon noonu la lay naxee moo tax nit ki buy gis deret ak yu mel noonu rek na teel a jóg xooli ko dem ku xam-xamam màcc lool mu teel jóg nga xam dina jël les devant nga xam ne bu fekkee du cancer tamit wala laay xam du bu fekkee moo la mu teel ci jóg faj ko balaa mu koy indil ay jafe-jafe. bu jéem yàlla buur bi moom dina la jàppale. ci seen nag euh, yóbbal tawféex comme ni ñu koy dooree ci émission bu nekk ñu ngi jëm tey ci ki nga xamante ni dafa bëgg ay mbiram gën a dox. maanaam mi ngi am as tuut waaye bëgg na ay mbiram gën a yokk maanaam wërsëg bi yaatu wërsëg bi gën a maanaam mbir yi gën a naat xewi li gën a yokk kooku li ñu ko digal d'abord mu def mooy na jël saar bi ñu wax alam nasara yomb na nga bind ko 906 fois juróom-ñeenti téeméer ak juróom-benn yoon nga koy bind nga jàmb ko saafara ci ndox moo xam ne day mën naa nekk ndoxum taw mën naa nekk ndoxum teen wala mu nekk ndoxum géej bu mu ci nekk baax na nga jàmb ko saafara sangu ci naan ci desal si tuuti loo xam ni dañ nga ci faral di dolli ndox yooyu di ko raayoo di ko diwoo ci kàttanu yàlla loolu bokkoon ci li xam ne dina ubbil nit ki li nga xam ne mooy ay mbiram mu teg ci tamit bu ko neexee ba tey mu bind saar bi di alam nasara benn yoon bind aaya bi juli naas bu sawaati ba mu ba aaxiri aaya maanaam mi ngi nekk ci sóordu al imran aaya 14 mu bind ko ba mu jeex juli naas bi lay bind ba mu jeex alam nasara ak benn kursi yu mu boole kook reenu rand mu ëw ko takk ko téere ndégg ci kàttanu yàlla wërsëg dana ko yomb ay xewal dana ko yomb loolu lañ la fi indi woon tey ci seen émission jotaay ak borom tawféex loolu moo doon yóbbalu tawféex ñu leen jox daje ci beneen bis ci beneen anam assalamu alaykum warahmatullahi taala wabarakatuh barakatuhu gaa ñi jéem leen jéem leen ku jéem yàlla buur bi moom dina la jàppale gangi jem len jem len ku jem yalla bur bi mom dina la jàppale aduna xëyu rek jikki daa di sotti benn benn jem jem